sama ne xabirum dak ismu tasqir sey wona muy xel bobu ci kanam yalla jam jam yalla pire la jam bu ma jam la qamalal qabir dañu lan kumpa ku bay dak sa jam si da ko firee sa jam sa jam si ndax du ahmadu waaw ah, waaw noonu la di yakarna naa ku bay dak sa jam xabay naka kana sopule sayyidina muhammad قدر حطيتك أها محمودا وصاحته خفل يا خفيف يا الله يلا دنيا لكم بس نجام سي تم يا مرنو مقام محمود قلفهم قلفهم داني قبل الخلائق لا إله إلا الله asamaan du mbindeef suuf du mbise du mbindeef géej du mbindeef yéen ñii mbindeef ah suñu mu ne xablal xalaay allahu akbar xamal la mbaam moot loolu ko wax mooy Seydina Muhammad xamal ma ba yàggal ko xam ndax ruu ruu yu Seydina Muhammad ak ruu yuntu bi asal la rasaqana allahu mulaaqa aha aliou nabi sama baay mu ne rasul yàggut nabee gën a yàgg nabi moo gën a rasul rasul yàggut xoolal si man xool na wax foofu rek mulaqat nabi wër si kanam ma dajeeg Seydina Muhammad yàlla ma ko may moo ma ko may ci tawam gi moo ma ko may moom allaaw ndax yàlla dafa tawe ma kon yow mi dem ba ci xabru sayduna muhammad ba taxaw ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah mu maa ngi seet ne yàlla benn maa ngi seet ne yow mi yaay yónnent bi bi waaw waaw loolu wax xam-xam fu mujjee mu ne yàlla in kuntu qubilat islami in kuntu qubilat islami faqbit ruuhi bu nekk bu nekkee nangu sama dugg ci islam rek ray ma léegi waaw yàlla faat ci la jor wuti waaw waaw day ruu moom faw day takale ko jëm kullu man halaya fanin kullu nafsin zaiqatul mawti nga dem ci misbahu salika mun ni yaqinan kullu ruu zaiq wa kullu nafsin lima ma zaiq moo noonu ko waye sax bakkan bu ñëm du nga ñam de ruhu dan tàqali ko jëm ci su man da wax bu gëna bu gëna a yëm mu ne allah tamawtak jawwaalan siqlu mubaalax la dafa jox jawwaalan alal xalaay ñëpp lay dal comme l'asper comme comme tey l'asper rek bucc ci misaal may misaal nag muy muy dugg fu ne amul buur amul baadool amul sëriñ amul taal amul kenn ñëpp waaw waaw mu ne at laa tamaw taga taga taga jawwaa alal xalaat ko ne ko rey ma ci lu gaaw yàlla jël ruum bi mu dem bu nekkee nangu sama dugg ci islam yow yàlla rey ma léegi mu rey ko Seydina Ali moo ko sang sang ko defar ko julee ko xajan la jëm te yowul la ana lu ko dugal àjjana bëgg bëgg Seydina Muhammad wax ji ñëw na mun jeedul abdi mina niiraani saa yaqadul xili ila jinaani kii moom téeméer at mi ngi may yàlla téeméer at ci banu Israël téeméer at duna ñu fa ko kaa duna moom foog may yàlla daanaka ba mu faatu waa ko sànni ko waaw xam fa lañ ko sànni cam ala masbalati mooy sën sëg masalan ca gannaaw kër lañ ko sànni ne kii tekku dara ndax daf mooy yàlla mooy yàlla mooy kër yàlla yàlla waxi Moussa ne ko Moussa eh sànq sànq defar ko waa banu Israël ñoo ko sànni Moussa nag lu tax mu ne mu ne mu ne dafa kii tur yonent bi ci bëgg tur bi julli ci borom tur bi loolu moo tax ajana la jëm kon mu jot xam di ñëw amina niiraani ñëwul saa yaqadu xil ila jinaani loolu mooy gàmmu gi ngo li anna wa nasara fi tawra fa jël ismu amal wa ala ay na yi bërëm la ci teg bërëm yi bëgg gi bëgg Seydina Muhammad jibrilu foofu lay tejé nak du jeex du jeex du xat mais wax waxal lo xamné ne dañ dégg rek mo am solo wax ju bari am solo wax bët sëriñ tam am ben njëriñ man li na xamné ne su ma rek na xamné ñima ñima ma ñi ma tim kontaan nañ té lu rek am solo té yaga na fi noonu kontaan ngeen bu fi amoon sax mu neex di ok jibrilu sabrana sumrata jundi hay suñu xamantaw bila fasain ayaa musawiru yàlla wane malaaka la moo tax sëñ bi ne bilaa fasayin malaaka bu soppee nit comme yow lay tiddee doo tidd waaw kii bu dee malaaka morsi bi ñëw ba ci man toog waxtaan ak man dem lu may la morsi laa gis di ah kon du am solo kon bilaa fasayin lu muy jëriñ kon malaaka la gis jërë tan mosu ñoo ma ndaw loolu la mënu laa gëm man loolu may dëgg bilaa fasayin ku yow ma di ma di ñu ne ma di sisi la tudd ñu ne bëkk néegam la bëkk néegam la woon sëñ bi dafa ne ci néeg bi ma di ñëw ma di ñëw fëgg sëñ bi ne ma di dajoo foo kenn mu ko wax am na ko ma dajale mu ne ko ci malaaka la bokk ci man la jëm soo doon siyaare waaw boo ju wàcc waaw waaw nii da def loxo bi teddam ya loxo bi tedd ya tayir ya day ya ay yaa rahmaan loxo bi dafa laab dafa set nayu tabe na mën naa joxe baax na jubal na jub na jub na jubal na wallaay Seydina Juman Ndaw fa lay xool nga fekk képp waaw waaw amatuma ci moom sago nag loolu rek la may waxee loolu rek dama am ci moom sago dama am cofe ci Seydina Juman Ndaw ba yëg ko man xam naa loolu wallaay laxasi bi ngoog Jibril dafa toog moom dafa toog ak Seydina Muhammad di waxtaan moom mu ko la maa xalqani laa asru alfu ma yàlla bi fukki junni xat la adri ma afaan xaw lu may def mission may def xaw ma ko ma ne adri ma afaan su ma naadaa nii yaa jibril yàlla woo yàlla yaa jibril jibril yunti man ci laa doo xam ne man jibril laa tudd aratu an ismi jibril ko al labayk allahumma labayk yàlla wuy naa la xam nga yàlla wax jibrilu te boobu bind na ko lu mat fukki junne wax de te jibril xamul ban mission lay dox xamul ko yàlla di waxal jibril yaa jibril xadis nii majjada nii ahmada nii seen point yooyu yëpp seen aajo man da wan ko ci waaqi ndekete man a dama dama wul bi di waaqi dajeeg moom ma ne ah sama waa ji daal loolu lii rek gis ko loolu lii ci tiir yi rek boo ñëwee si waaqi gis ko déglu ma wéete na yàlla fukki junne at moom jibril ñun aajo man a bindal waxadaka ruuxu walam laaku xaatibatan ahlu samawaati jibril wéetal na la malaayka yi wéetal nañ la ahlu samawaati yëpp wéetal nañ la allahu subhanahu wa taala loolu suñu mën da wax teedal ma jibril teedal na yàlla fukki junni at suñu mën na ko yow ah ndax jibril teedal na yàlla loolu am naan mu ne waaw waaw dëgg la de majjadaka ruuhu walam laa ko xaatibatan safwal majadati saf wal majaadaati yow jibril ci moom teddal na yàlla malaaka yi teddal nañ ko ñëpp teddal nañ ko benn bu ci def mooy axamadani sant sant ma yow jibril yàlla may wax jibril da ko sant ma jibril sant na yàlla fukki junni at su ma ndaw leeral na ko xamadaka ruuhu walam laa ko kulluhumoo wa awliyaayuk jibril sant na la malaaka yi sant nañ la lawlu yaaw yëpp sant na ci allah subhanahu wa taala waaye kii ñàkk sant yàlla mooy sayyiduna muhammad kat sabaqal hibbu min rabbin li safwatihi wa sabaqal hamd min abdin li si niyaami mu ne kat sabaqal hubbu min rabbin li safwatihi wa sabaqal hamdu min abdin li si niyaami jërëjëf gàmmu gaa ngoog xaajut du jeex waaye waaye ba wóor na ma ne kontaan ngeen moom képp ku fi tey du jullit sa xol set wax jëne yàlla rek wallaay xaajut mu ngi nii lii des na lii lii sa waxguma fii lii laa laa lii kese des na lu bëri waaye wax li am solo mooy wax wax joo xam ne dana jëriñ doomu aadama loolu la waxee wax ngir yàlla képp subhanahu wa taala du ñàkk am ñoo xam ne dimanche gi sax mu ngi noonu dañuy liggéey kon su ko defee ñu ba foofu sama xol seet na guy si yéen itam sama alhamdulilah maa ngi sant yàlla ci loolu ko sama bàyyi sama sëriñ moo jox ndigal xamal naa ne ba ma ñaanlee laa xam ne wallaahi fu ma jëm daa fa am ndam wallaahi dinaa fa am ndam tey am naa yaakaar ne am naa fi ndam bu dee yàlla dégg ngeen ko bu dee rasulullaahi dégg ngeen ko bu dee xutbu kabir du jeex waa ji wax na ko léegi géej la su moom rek dayoon na sëkk waaye mënoo ko wax te waxoo yunti yàlla Muhammad ndax rasulullaahi mooy léppam lépp Seydina Muhammad sama ko seet na guy cant ki kanam la jëm melatoon nii ca ruq la newoon ca ruq ba la woon sax waa daayara naa ji na ñu ngoog ñoo ko ñëwoon may Aliou Aliou maa ngi daayara Aliou ma ñëwal bëgg naa def waxtaan wi acca fa la ñu fi sa bopp gën koy gëm rek du dellu gannaaw mukk maa la wax lii mbirum alaajo ma daw amul tànk gannaaw tànk kanam la amee so mom seigne muntaxa mu ne ala alaaji ma ndaw du anier du korosé lu anièreul korosé wut kanam la jëm te wallahi kanam la jëm gëm na ne tante bi seydi ala ma ndaw gërëm nako ku gis ñu demee rek xamane li suñu war a gërëm na ko ñu fi toog ñun ñu bax lañ ñu sel ñu fi tok ñu sel ju bax ñu fi tok kon gor gor lu gëmal sa bop gëm nga way gën ko gëm gën la bëgg alaaji ma ndaw gën la wayof gën la dal kama li nga xamé mooy yow jeex na de ci kaw nga jëm de yow aaxir kenn du kenn ko kenn du ko jàng di dellu gannaaw mënta ne doo tolloo mu kanam nga jëm gestionnaire yi yow aaxir la ko may de nit ñi lay tëral yow aaxir la ko may de góorgóorlu ci waaxit bi mel li nga mel bu sensé mel li nga mel rek maa la koy ñaaxee kenam kanam ñëpp góorgóorlu bu baax maa ngi sa gannaaw maa ngi sa kanam maa ngi sa ndajoor maa ngi sa xam nga ko sax xaanuñ xaanuñ ci saayir képp dañu xaanu ci baatin ndax am na am na fu ñu jaar ma yow. te yàlla rek moo tax ma def ko te gis naa si njëriñ kat am na fu ñu jaar fu baax fu leer ndax ma Soxna Mbaye dama dimbale sama sëriñ Soxna Mbaye sama sëriñ Cheikh Mamadou Mokhtar maa koy gërëm moo ma dimbale moo ma moo ma yar moo ma teg fu doomu nit ku di taw lépp moom la Soxna Mbaye ma yóbbu gàmm boobu su ma toogee ci photo su ma toogee ci seen so sama tàngee sa du jot déedéet boobu ndaw laa Soxna Mbaye dama teel woon gàmm dama xamal ne yow fa ngay gàmm ji li ma ne si ngay ne fa ko teel woon bu may nek xam nga gàmm yu njëkk yoo xam ak ñu mëna fatil dañ ma koy wax sax ne sa bay ma lay indi bobu guddi gu ndaw nga dama yàgg won li waaw kon na koy sant diko ko gërëm moom woon yoon wi nak diko ñaanal yalla bu baax sama xol seet ci moy sama sëriñ moo ma jox wërd li ne ci won moko def kenn defako ci waaw kon yaaka na ne gërëm naa ko bu baax man ko man ko man ko seetal mbooloo yëm man ci kanamam ci gënaaw yëpp gërëm na sama bay sama sëriñ ndax lepp mom la suma toge bi di wax mom la li ne ci man moo ko def ku gis bëgg ma moo tax lépp moom la ndax moo ma boole ci kër El Hadj Mandaw moo may jox sirru Seydi El Hadj Mandaw moo may jox faydu El Hadj kon kon dinaa ko gërëm li may téye di rëkk moo ma ko jox moom moo ma dimbale moo ma jàngaloo sonn ci man lool ci sama jàng lu ne sama baay def na ko daa ji mu taw naa sama bopp mbital sax mu taal oto ñëw taxaw da nga mu yóbbu ma kër ga fañ ma indiwaan ma gërëm naa ko baax maa ngi ko seedal mbooloo bu baax wallahi maa ngi ko seedal nit ñi laa yàlla rek moo tam ko seedal waaw ndax boo boo xee ci kanam day mel ni mu toog a tax waaye ci kanam laa ko waxee maa koy gën bu baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi taam jàmm mu yàgg fi taam jàmm bakki yonent yàlla Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim